Le salon Sencon, qui est devenu quatre salons en réalité, parce que nous avons euh, le salon de la construction, le salon de l'énergie, le salon de l'automobile et le salon aussi euh, de la climatisation. Euh, donc ça montre l'attractivité du marché sénégalais pour plus de 200 exposants internationaux, locaux, qui viennent montrer leur savoir-faire, mais qui aussi offrir des produits et services aux acteurs de la construction, aux acteurs de l'automobile, Et il est ravi de voir que le Sénégal euh, continue d'avoir de l'attractivité, malgré tout ce qu'on peut en dire dans les médias internationaux. Les activités continuent. Euh, nous avons, c'est vrai, quelques événements institutionnels qui perturbent un peu le calendrier électoral, mais malgré tout, la vie économique continue. Les visiteurs de ces salons n'ont pas changé leur programme, les organisateurs n'ont pas changé leur programme. Ils sont là et la, le quotidien continue. Donc ce salon est très important. parce qu'il montre aussi l'évolution technologique des entreprises sénégalaises. Il y a des entreprises que j'ai eu l'honneur euh, de, de, rendre visite ici dans leur stand à ce salon. Ils avaient une activité il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, cette même activité est développée. Ils sont sur toute la chaîne de valeur. Il y a aussi d'autres entreprises internationales qui avaient un petit... Euh, un petit stand maintenant qui ont un gros pavillon parce que le marché sénégalais est porteur, il y a de la consommation, il y a une demande de matériel, de technologie pour faire évoluer le milieu du bâtiment, le milieu de l'automobile, euh, l'évolution la, aussi euh, que des, des, questions énergétiques et, et autres. Parce qu'il faut un cadre économique stable, euh, il faut aussi euh, une économie dynamique. Si vous avez un pays en disant qu'il a doublé sa, sa moyenne de croissance, si vous avez un pays dont les fondamentaux sont stables, un pays auquel euh, les institutions internationales font confiance, ça donne de l'attractivité. Et c'est la raison pour laquelle c'est le, le, Sénégal, c'est Dakar qui est choisi pour habiter un salon comme ça. Vous voyez que beaucoup de pays, la France, l'Inde, le Portugal, l'Italie, euh, le Maroc, euh, la Tunisie, ces pays viennent exposer leurs produits ici. Parce que économiquement, euh, le marché de la construction marche, parce que économiquement, le secteur de l'automobile marche. Donc ça, c'est important et ça montre à quel point euh, cette dynamique économique doit être maintenue, mais aussi la dynamique de stabilité, d'entente des acteurs politiques doit être continue parce que en réalité, si on est stable, a des élections qui ne sont pas contestées, si tous les acteurs dialoguent, ça rassure et ça continue d'amener des investisseurs, des exposants qui viennent vendre aux Sénégalais, aux entreprises qui investissent ici, leurs produits et